suñu tànk yi tànku dox mbokk la élection présidentielle bii ñu jëm moo tax ñu taxaw fii ñu taxaw tey ci ngay Mékhé ci butik bii nag bala ñu fee egsi dañu aw nooto aw nañu mbooro romb nañu li nga xam ni mooy zone industrielle u ñun lañ ca tiba rek mooy que ni Daaru Xuddoos ak ICS dafa nekk exemple boo xam ni dañ ko war seetaat ci suñu développement réew parce que Daaru Xuddoos normalement waxuma waa Thiès mais waa Sénégal gépp la waroon jëriñ ICS miy defar engrais suñuy phosphate la Sénégal am na ñetti site phosphate et pourtant suñu mbay mi soo gisee li ko gën a gàllankoor mooy ñàkkum engrais. localisation wu développement fexe ba développement bi doon loo xam ne mi ngi ci gox goxaan yi loolu moo ñu itteel pour que nit ñi gis seen bopp ci li ñu am mais surtout gis seen bopp ci li nga xam ne moom lañu moom soo jëlee ngay mexe bii muy commune soo waxtaanee ak nit ñi dañ ni la sonn nañ moo taxoon ñun ñu ne. incha allah daañu alloué un milliard par commune ci Sénégal un milliard par commune milliardu investissement la du milliardu fonctionnement dañu bëgg dëkk bu nekk commune bu nekk mën régler ay problème primaire am école dispensaire un milliard boobu da nga koy jële ci BCI bi BCI bi ngay décentraliser soo ko décentraliser cellule des marchés nga décentraliser ko juge juge des comptes yi nga décentraliser ko ba tax na li nga xam ne moom la ñuy liggéey ci dëkk dëkkaan yi jëriñ dëkk dëkkaan yi day tax ba soo joxoon waa ngaay un milliard lépp loo xam ne dañ koy liggéey ci ngaay waa ngaaye ko fii def fii ñu taxaw dafay wane ni ñii ku leen jàppale ñu dem dama ne ñu gëmee artisanat mais surtout suñu gëmee petite et moyenne industrie ak entreprise ma ni daañu construire durablement suñu développement état bi ñu bëgg a construire ce sera un état décentralisé déconcentré loolu mooy révolution bi nga xam ni moom la ñu bëgg a def ci état wu Sénégal pour que mu nekkal fi ñi tax mu nekk fi muy askan wi maa ngi leen di gërëm leen sax